ganu suba si euh, di Dame Babou comme ni ko Fatou waxee muy euh, journaliste doon confrère euh, bu Sud FM doon seen correspondant foofa ca États-Unis ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Dame bu weesoo candidat démocrate bi nga xam ne am na deux cent soixante dix grands électeurs li koy may mu dem ca présidence ndax lii li ñu séntu woon la départu Trump. waaw ñu bàyyi séntu woon nañ ne Biden moom moo naroon a bom bu yeggee ci wote bi. ndaxte ñi nga xam ne ñoo doon def ay sondage di laaj nit ñi ñan lañu fas yéene woteel eh, ay lu mat ak daanaka eh, buñ ko masee laaj toujours Biden mooy ki nga xam ne moo ci ëpp li xañ ne sax nit ñi daawuñu wax lu jëm ci sondage yi niñ ko daan waxee bu njëkk ba ndax dañoo fàttaliku li nga xam ne moo xewoon ci 2016 ci diggante Hillary Clinton ak Donald Trump mi nga xam ne moo doon wote ci talaata ji weesu ak Joe Biden ndaxte booba ñi sondage yi ñi nga xam ne dañ doon laaj nit ñi ku ku ngeen fas yéene woteel ñu ci gënoon a bari dañu doon wax ne Hillary lay doon xañ na mm-hmm. ba ñu wotee ba ca ngoon nga sax Hillary moo ëpp lu ñu ñu ko woteeloon mais Donald Trump moo ëpp la ñu ko woteel ci état yi nga xam ne ñoom la ñu doon xëccoo mm-hmm. moo tax ñu bari sawaruñ ci woon wax waaye nag li ñu wuute woon booba bii mooy booba da doon yéeg ak di wàcce lu baree bari bàyyee bu Joe Biden moom ba ñu tàmbalee di ko laajte ba ni ñuy yegsee fii ñi nga xam ne sax ñooy def sondage yi am ci ñoo xam ne dañ naan côté républicain yi la ñu gën a féete ñoom seen bopp sax buñ ko masaan defit dañu naan Joe Biden moom mooy ki raw ci ñi nga xam ne moom ñoom la américains yi fas yéene wateel moo tax bi ñu yeggee fii li mbett sax bu fekkee am na ci mooy fa ñu yéene woon ne Joe Biden dina ko rawee Donald Trump mhm. yeggu fa waaye tewul moo ko raw moom ci lu leer ci sondage bu njëkk moo ko raw itam bi ñu wotee ba noppi. Mhm. tey jii nga foog ni lan moo waxal euh, Trump mi euh, demam bi euh, tey États-Unis ñu namm ko. li tax ñu ne ko demal daal li ci ëpp daanaka téeméer bu nekk boo ko doon séddale. juróom mbenn fukk baag lu ko ëpp wala ba ca juróom ñaar fukk ba mënees naa wax ne mbas mii nga xam ne moo tasaare adduna bi moo lëmbee àdduna bi yëpp moom mooy lëmbee Amérique bu baax a baax a baax te ñu bari ci ñi nga xam ne ñooy américains yi ñi ëpp ci ñi américains yi nee nañ taxawaay bi nga xam ne moom la ci Donald Trump waroon a taxaw moom la taxawagul ndax moom ci boppam bi nga xamee ne mbas mi feeñ na yëg na ko xam na ne mbas mu rëy la waroon a doon waaye nee na damaa bañoon a tiital américain yi moo tax waxu leen ko li nga xam ne moom la leen waroon wax ñu takk ay masque ak taxawaay yi ci war ba di ko moytu defu ko woon ndaxte xam nga ne lu mat ñaari téeméeri junni ak ñeen fukki nit fu ñu faatoo lu mat million lu mat juróom-ñeenti million ñu ne mbir dal na leen fa loolu xam nga dafa bari lool lool lool moo tax américains yi ëpp ci ñoom daal dañu ne waa ji mënul mënul ci li nga xam ne moo leen gën a ñor mooy li jëm ci Covid bi man naa am yeneen yuñ ko meree woon waaye bi ci ëpp solo daal mu bii la ndax ñu bari seen woon nañ ne koom-koom bi booba mi ngi doon dox bi mbas mi di ñëw te itam eh, digganteem ak nit ñi ñagasul woon ñi ci gën a bari. Mm-hmm. Eh, kon moom bu mbas mi amul woon ñu bari yaakaaroon ne dana faluwaat waaye mbas mi ñëw ci diggante bi moo ko daaneel. kon daal politique sanitaire am moo xaw a lajj. bu ma la déggee ngay wax. ñi ëpp loolu la ñu jàpp ndaxte xam nga euh, Amérique dafa am euh, lu mu wuteeg réew yu bëree bari mhm. euh, ndax sa boo ba mbas mi daataan ñëw bis bu yàlla sàkk bu nekk ay millions yi millions wala téeméeri millions yi nit ñoom ñoo fay jóge di di wala di fa tukki ci donc mbas mu mel nii bu fa amee lu ko tasaare dafa yomb lool lool lool ca biir réew ma li nga xam ne moom la borom xam-xam wax ne Donald Trump bu ko taxawee woon mbir yi du yegg fii. ci àdduna bi yëpp sax du fa yegg waxuma laa ci Amérique looloo tax ñu bari ñu ne fi mu ne seen soxla li ci ëpp mooy lu fa jële mbas mi du rek dañ koo mere ndax li mbas mi ñëw ba pare ak mm-hmm. lim fa jot a yàq waaye lu ko fay jële la ñuy ñu bari ci ñoom yaakaar ne bu dee Donald Trump moo fa toog ba léegi jarul sax ñu ci am yaakaar day gën a yokku ndaxte démb bii may wax ak yow rek ci bis bi ci benn bis bi rek mm-hmm. eh, téeméeri junni ak ñeent eh, mbas mi dal na leen ci bis bi mm-hmm. lu mat junni faatu na ci ci bis bi rek loolu moo tax ñu bari yaakaar ne bu buñ ko fi bàyyi woon ñu buñ ko woteewul buñ ko woteeloon ba mu toogaat fi mbas mi day gën a yokk te loolu musiba lay doon. tey dégg nañ ko mu contesté yi lépp résultat euh, mu daal di mu mel ni dafa remettre en cause système électoral bu États-Unis est-ce que li ni mel mës nañ ko nemmeeku ci histoire euh, États-Unis d'ailleurs. déedéet ni mu bindoo nii mësul fee am benn rëcc xëccoo moo fi masoon a am mu yàgg lool ba am ba am weer ak lu topp euh, ci loolu. ci l'an deux mille bi nga xam ne ne Al Gore daf doon wote a George Bush mhm. te booba itam nit ñi mënoon nañu wax eh, ne lii jaadu nañu di ko xëccoo ndaxte benn état rek la woon muy Floride ñoo xam ne wote nañu lu mat ay millions ba ñu wañee ba noppi ñu ne eh, juróom benn téeméeri xob rek la ko le George Bush la woon ki nga xam ne moom mooy euh, Al Gore jamono mm-hmm. boobu. Mm-hmm. ñu naan dañuy wañ rek dañu ñu wàññi ba mu teg weer ñu koy xëccoo ci benn état boobu euh, ba mujj Cour suprême moo mujj ne dañuy arrêté wàññi bi George Bush gagné ne Al Gore ne kon gannaaw fa mbaax na nekkee benn wax na loolu. ànduma ak ñoom ci li ñu wax waaye danaa ko nangu ndax foofu il xëccoo bu rek dafa am fu mu yem waaye président bu ñëw ne moom gañe wuñ ma damay wër ci euh, fu ñu wootee fu bari mm-hmm. euh, fu ñu wax ma dingat ne la ñuy wax du loolu danaa wane ne dañ koo njooj njaaj loolu ren la ci lu ma fàttaliku bokk man euh, ren la ma sa am Amérique te itam ñu bari wala sax ñëpp ñi ëpp ci américains yi ak ñi ëpp ci ñiy seetlu ci àdduna bi wóor na leen ne Donald Trump dafa ñàkk ñeenki rek mais li muy wax du ko du ko jëme fenn. mais mbaa du nax saxal tamit victoire euh, kii di Biden. du ko mën a nasaxal ndaxte xam nga foofu euh, li nga xam ne mooy doole ji dañ ko séddale seddale ba ku nekk dafa am loo loo xam ne ka ca des mënu ci dara. Mhm. Donald Trump mi ngi wax naan d'accord ci mi ngi wax naan àndu ci. mi ngi jéem a mi ngi jéem a yeexal mbir waaye teewul Joe Biden taxawal na li nga xam ne moom mooy kuréel gi yi nga xam ne ñoom ñoo koy waajal ngir bu ñaar fukki fan ci weeru janvier ñëwee mu jox ñu jox ko lenge mu mm-hmm. tàmbalee doxal. Mm-hmm. loolu te Donald Trump mënu ci dara xam naa ne bu fekkee ne da danoo nekk ci réew yu mel ne suñu réew yi bu ñu déggee ñu naan euh, dañu sàcc élection dañu kiiwul bu doon fii la boo mooy tuul kon Joe Biden fi mu ne jàpp nañ ko ba dugal ci kaso. daal di tasaare ñi nga xam ne ñooy wañ nag yooyu daal di def état d'urgence ak yooyu waaye foofa loolu mënu fa am ndaxte ki nga xam ne mooy judo Donald Trump tey jii li mu naan dañoo war a dakkal wàññi beeg yooyu yëpp amul bu ko bëggoon dakkal ci doole benn policier kese amul bu bu nekk ci ndigalam bu mu mën a yebal mu def loolu kon nag dafay dafay wuute te xam naa ne dafay guddal jël bi rek waaye euh, li nga xam ne moom nar a am la quatorze décembre fukki fan ak ñeent ci weer wi ñu jublu mhm. ñi nga xam ne ñooy délégué daañu toog dëggal ne li ñu waxoon ne Joe Biden gagné na danañ ko dëggal. Mhm. bu ñu demee ba ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ci weeru janvier. Mhm. ñu dajaloo ca congrès ba Joe Biden ak Kamala Harris yëkkati seen loxo waat ñu jox leen lenge loolu moom. Euh, Donald Trump mënu koo tee am. et justement lan mooy xaar Joe Biden ci euh, tey jii bopp Amérique. li ko fal moo koy xaar. mooy. mbas mi mbas mi lu koy jeexal mbas mi lu koy jeexal loolu la américains yi gën a yàkkamti ci Joe Biden te defe na ne àdduna bi sax ñoom la gën a yàkkamti ci Joe Biden mhm. euh, lan moo la koy gën a won rek ne xam naa ne Donald Trump xolam war na jeex ci lenn ndax ñàkk wi nga xam ne ñu ngi koy seenu ñëw ñu ne bu ñëwee mën naa am mbax mi dana danañ ko danañ ko mën a dakkal mhm. euh, tey démb démb compagnie bu mag bu ñu wax Pfizer euh, moom nee na gis na ñàkk wi léegi mhm. ba seet na ko ci lu mat juróom ñeent fukki junniy nit Mm. te andilu leen mm, ay jafe-jafe tam mi ngi wane ne mën na ar kuñ ko defal euh, loolu la Amérique yëpp di xaar waaye diggante bi ay weer yi weer lay doon tax xam nga biñ naan bés bu nekk téeméeri junniy nit mbas mi dal leen benn junni dee la xaar ay weer yi weer fi mu nekk nii moo tax Joe Biden li mu jëkk a def mooy taxawal benn kuréel goo xam ne fukki borom xam-xam ak ñaar la ne leen danoo bëgg nu daal di daje léegi léegi léegi soppi ni nga xam ne noonu la ñuy xeexe mbas mi loolu mooy li gën a am solo lu ñuy xaar moom bu dee ci àdduna bi nag. Mhm. moom euh, delloo ci kii euh, accord bi ñu defoon Paris ngir seet jaww ji nga xam ne tàngaay yeeg yooyu daf koy yàq nuñ koy defee ba mu ba mu ba mu dakk moom itam loolu ci lu lu gën a yàkkamti la ki nga xam ne mooy Joe Biden nee na 20 janvier bi muy falu ci lay bindaat Nations Unies ne leen dellu ci naa ci accord boobu nga xam mhm. ne. moom def ci génnoon xam nga ni itam bu ñuy wax mbas mi. Mhm. Euh, génn na ci organisation mondial de la santé Donald Trump génnoon na ci Amérique. Joe Biden nee na def ciy dellu si waat mhm. lu mel ne Iran seen accord bi ñu amoon nga xam ne gox boobu yëpp ci àdduna bi dafa lëmbe mhm. nee na ci dellu si yooyu ci ñu mën a tànn lay ci yu ndaw rek justement nga tënk ko mu mel ni mbas mi réduction fracture sociale raciale également ak enjeu climatique yi réforme fiscale ak relation internationale yu ci mel ni comme Iran boobu nga wax euh, tey jii est-ce que euh, rupture gi ñu gis euh, kii di Biden wax ne moom la nam dafa dafa dafa mel ni dañuy delluwaat ci na Barack Obama doon gérer waaw am na sax ñuy kaf naan euh, bu Joe Biden trois troisième mandat wu Barack Obama la. loolu moom moom ci boppam nee na lu lu lépp loo xam ne lu fi Obama bàyyee woon ci lu baax la dinaa ko gën a dëgëral bu baax a baax a baax te itam yaakaaru ñu ne dana fi dana delluwaat ci lu fi baam Obama bàyyi woon mu naan def koy dindi baaxul. loolu wóor na ñëpp yenn yenn yi nga lim sax daanaka jot nañ ci tontu. ba mu des mhm, mhm, mhm. mooy mooy jaxasoo yi am ci diggante ci waaso yi. rawatina ci diggante nit ñu ñuul ak nit ñu diggante nit ñu weex ñi ak ñi dul ñu weex mm-hmm. ndaxte Amérique moom xam nga moom dafa am ñi weex ñi ak ñi ci des mm-hmm. du ñuul rek wala ku puur wala yooyu loolu moom dafa xóot a xóot goo xam ne xam naa ne euh, ci fan yi weesu li xew ci George Floyd bi ñu rey nag yooyu mm-hmm. daf koo gën a wone rek mbaay lu fa yàggoon la moo taxit dindi gi moom du doon loo xam ne da ngay xëy rek si waat benn décret ne dindi naa fi xëccoo am ci diggante boobu ndax dafa xóot xóot xam ne càmb la daanaka lu koy suul dana yeex lool dana dana jafe ndax dana mën a jeex ci jamonoy Biden sax feneen su ko. ndax dellu si waat euh, démocrate yi ci boppu euh, Amérique mën na euh, am Afrique mën naa moom ci yaakaar ci li nga xam ne mooy politique étrangère am ci lëkkaloo. Afrique Afrique daal xanaa peut dañoo war a bàyyi yaakaar ci yëfi jàmbur. Mm. lu ñeneen di doxal. ndaxte boo ko seetloo campagne bi mu tàmbalee ba ni mu jeexee li ñor Amérique yëpp. tuddees na ko ku nekk wax loolu noo a doxale wala noo doxale kenn tudd fa Afrique ndax te wax dëgg yàlla boo bëggee dëgg-dëgg rek li leen di tax a jóg mooy koom-koom ak alal ku ñuy diggaaleel lu ma cay jëlee la ñu seet te li ñuy jëlee Afrique ci lu demee noonu dafa bariwul parce que li ñuy jaay jaay ak di ko jënd ci bi yëpp boo ci nekk Afrique matu ca juróom. Hmm. moo tax doo ñu koy li ñu sax bariwul xam naa lenn dong leen la xam ne Afrique ñor na leen yi ndaxte bi terrorisme bare ba léegi. Mhm. réew yi amul doole fa ñuy tàggate terroriste yi fa la ñu leen di waajale fa la ñu leen di yabale ñuy dem di attaqué yeneen yu am doole yi loolu dong dong moo leen moo ci ñor moo leen di ñor ci Afrique xam naa ne mais bu dul loolu booyee boo Afrique xool yëf yi boppam seet nu mu koy réglé te bañ a yaakaar ci ku falu tey ku ci sécurité googule euh, bi mujj muy Donald Trump kii mu limogé muy ministre de la défense bi est-ce que fileek janvier kii di Biden di toog euh, mën nañoo di foofu ca États-Unis yeneen euh, changement xam nga ne Donald Trump moom kenn du ko waatal dara kenn du ko waatal dara dara dara ndaxte dafa am yoo xam ne dañ ko daan waggar bu la loi mayee sax da nga ko jomba def ndaxte bu fekkee ne ñu ngi woote ñu naan fii ak juróom ñaar fukki fan ci la say say xilaafa di jeex da nga moytoo jël décision yu mag yi loolu dañ ko daan waggar même bu fekkee ne yoon wi may na la ko Donald Trump nag moom kenn mënul la ne tey dana def lii wala du def lee tey jii balaa jant bi di soow bu ñu nee dàq na ki jiite FBI ndax day mi ngi koy ŋàññe bu yàgg yàgg du du bett kenn te xam nga ku jiite lu mel ne FBI mbiru sécurité bi kuñ ko masaan fal fukki at lañ lay wax fay toog ndax doo ci seet président bi fi nekk tey bi fi nekk ëllëg dañu bañ politique dugg ci mbiri sécurité gëstu foofu waaye bu Donald Trump nee noon su ma ko dàq bu faluwaatul mën na ko dàq diggante bi wala yeneen yu baree bari kenn mënu la waatal daal eh, fii ak juróom-ñaar fukki fan lan la fi Donald Trump di def. Mhm. Dame Babou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf. may fàttali ne ñoo ngi doon dalal Dame Babou di journaliste doon correspondant suñu ñooñ yu euh, Sud FM fële ca États-Unis